Senghor moo waxoon ni hmm, un problème est résolu si on arrive à faire son historique mais man dama si yokk nag son mais correctement nit boo defee historique bu correct yaakaar naa ni la boobu mun nga wax li tax ñu la yàlla dafa dogal ñu nekk ay ay ay doomu daara yàlla dogal aussi ñu am culture cartésienne tuuti jàng si école loolu lép nag Tivaouane moo ñu ko jox bi ñu toogee nag ñun yàlla dogal ñuy yëngatu si métier jàngale ndax koo xam ne da nga yor da ngaa si daara jàng école am na lu lu xam def ci yow am na lu lu lu lu connaissance def ci yow nga bëgg ko delloowaat ci sa ay ñoñ moo waral ñun fu nekk rek li ñuy njëkk xalaat mooy xool nan la ñuy créer élite élite boobu bu ko defee ñu mën a ñëw gérer masse bi lu tax ma commencé foofu nag c'est pas la première fois ñu am collaboration ak ak autorité parce que autorité aussi doo ko topp rek pour di tàccu wala noono non mais autorité bi yàlla dogalee nga am xel boo xam ne mun nga ko na ko boo fi defee dina mën na jur njëriñ ëllëg waan da nga ko koy wax foofu sax laay en pensant ma remercier waale avant kii ma remercier waale le président Abdoulaye Ngalgou ndax l'année dernière bi yàlla dogalee man nekku moon si ministre nekku moon si dara conseil bi ma bokkee si ñu war a dem laaj yi dafa am xel mu ñëwoon sama man mooy dama gisoon mii may étudiants yi di leen may chaque année un ay bourse ñuy jàngi Dakar bi ma ñëwee man ko lii de baax na lool mais étudiants yi dimbal gi ngeen di un étudiant ça peut coûter presque un million cinq cent wala un million trois cent ma loolu tamit li ñu tuddee croissance extravertie amaana boo ko defee si xale yi ressources yi ñuy gañe Dakar lay delluwaat te Tivaouane gii am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw pourquoi pas un million cinq cent boobu mën nga ci lu mu dee dee mën nga ci sauver dix xale yoo xam ni mën nañ ko jàng Tivaouane gii si privé parce que amuñ doole te bëgg nañ jàng te peut-être seen amuñ amaatuñ sens jàng si public vraiment mu déglu ko fayal ci lu mat trente cinq xale am na xale yoo xam ne te am nañ seen bac ba dem ñooñu ëllëg lu ñu am day dellusiwaat Tivaouane loolu nag moo ñu waralaat tey bu ñu ñëwaatee tamit nekk si bu njëkk amoon nañ xalaat amoon nañu amoon na njitte wax dara mais léegi yàlla dogale ñu bokk si benn conseil municipal war fa mën a proposer dara vraiment duñ fi toogati rek li gars yi di wax critiquer nihiliste non no mais nag on sera jamais l' avocat du diable dañuy xool li nga xam ni mooy doxal ci waawan ñu am si xam-xam di ko orienté nga comme si édu volet éducation la nekk lépp lu si mën a yokk dara rek dañ ko wax yàlla dogal nag ma ànd doomu Tiwaawan yu baax yi nga xam ni vraiment lépp lu leen ñoxal rek mooy njàngum Tiwaawan dem sa kanam si élite ba pare nag ñu ñu sentiroon aussi coup de renforcement léegi bëri na trop ku jug rek jàngale te jàngale mun nga am diplôme bu ne mais am na loo xam ne buñ la ci formé wul peut-être dina la manqué ndax programme aussi dafa am yoon ministre de l'éducation na la lii ak lii ngeen may jàngaleel liñ ci dind ak liñ ci a xam bu fekkee nekkoo dans les dem ci di joñjoñ ñu lay yokkal loolu sa solo léegi nag bu bu yàlla dogalee école tëj ñu gis ni vraiment l'élite est là yi ñu ngi dem di defi naka sudul dem defi langam ñu ni kat y a affaire à faire quelque chose ñu woo collègue yëpp vraiment ñoom ñi ñëpp toog koo ci woo mun la amul benn problème yow de xaw ma lu ma def ni xam li nga bëgg mooy Tivaouane jëm kanam mais nag ku ne xam na ni vacances dafa métti ay nit ñu woo toog neuf mois rey seen bopp ci école yi war a noppalu seen côté famille ngan leen ñëw leen ñu jàppalewaat xale yi def ko sélection boo xam ne fii nii bu ma trié woon fii yëpp mun naa si gën xale yoo xam ne lycée ñoom leen primé rek boo demee seen a si am na ñun fa primé au niveau primaire l'année dernière on a fait cent pour cent mais sans tambour ni trompette defuñ ko fenn ay fëgg ak nang parce que mbiru jàngale ak mbiru santé ñoom kenn du ko politiquer dañ am xel mu rafet rek nga teg ko ci dëkk bi jëm kanam bu ko defee Tivaouane am élite bi bëgg Tivaouane am yi cadre loolu la leen si jublu bi ma leen wooyee nag vraiment ñoom ñëpp ñu jox ma seen aval ñëw laaju ñu kenn dërëm bi gën a tuuti mais ñun nag xam nañ ne aussi père de famille war a ak sa famille dafa métti te xale yi bëgg nañ leen jàngal gratuitement si loolu lañ yàlla dogalee nag ñu bind du ma bindee lettre euh, le maire Demba Diop si vraiment mun mënuñu amul benn problème tout ce qui est indemnité de transport dinaa def lu ma mën et vraiment la mu waxoon def nañ ko ñu fi toog ñëpp biñ commencé cours yi jël nañ lan am na leen tàmbali leen démb it biñ pare presque jox nañ ñëpp loolu la yàlla dogal vraiment loolu na ñu ko ci remercier di ko wax ni ko loolu du pour moom du pour ñun mais Tivaouane moom lañ tuddee madinatul nuur wal xilmi Tivaouane mooy ville lumière Tivaouane aussi ville ville sagesse la te loolu la woote ba pare alxuraan karim loolu la yarfaxillaahu allazina amanu minkum wante wallazina utul xilma darajaat yàlla nee na képp ku ma gëm yëkkati naa la wante képp kuy joxe xam-xam borom darajan comme ñii ay borom darajan kenn mënu leen fay mais nag jàngale xam-xam ci tuwaar moom ko fi ñëw rek def nga laa xarwa kon ñun loolu la ñuy wax ni vraiment ñun ku ñu déglu su côté éducation lañ ci mën ñu orienté la duñ ko def ngir pëw ko réew duñ ko def ngir bëgg lu neex nit mais dañ koy def ngir ñën ñu tuwaawat ndax ki ko sanc xam-xam la ko sancee kon loolu moo doon solo si di remercier collègue yëpp nag monsieur faal mi ku xam na ni génnee ko yombul monsieur Dieng mii feebar suba ngoon mais santé am dafa xaw a fragile mais n'empêche dañuy man lu ngeen nekk maa ngi ci nekk monsieur Seck mii nekk conseiller municipal pare ñëwaat bokk ñun mbir mi ale ba kazalika monsieur Diagne pro histoire so ak monsieur Diop ñaari monsieur Diop yi xam ne woo nañ teew te teewuñu niveau primaire aussi sama collègue bi monsieur Mané ñoom ñëpp prof espagnol kon vraiment à l'unanimité ñu ngi gërëm population Tivaouane di di gërëm aussi parents d'élèves yi nga xam ne ñoo jox suñu confiance parce que loolu dafa am solo. leen former ci discipline yu bari lim nañ ko fi léegi professeur histogéo bi mi ngi fi professeur mathématique participer na professeur philosophie professeur anglais donc loolu di lu am solo ci njàngum xale. Euh, monsieur le maire mi ngi am mbégte bu baax di saluer initiative boobu ngeen am ndax dañuy wax ni wax ma. quelle jeunesse tu as, dire te dirai quel peuple ou avenir tu auras demain. Donc, li ñuy wax mooy njàngum xale formation wu xale tàggat xale yi dafa am solo ndax ñi ñooy yaakaar yi ëllëg ci Tivaouane Tivaouane di dëkku diine mais di dëkku xam-xam ndax ku wax maam Seydi Hadj Malick Sy wax xam-xam kon dafay jaadu ñi fi dëkkee ñi ko dëkkee ñu tàggat leen ba ñu bokk ci ñi ëpp xam-xam ci Sénégal kon looloo tax monsieur le maire bi ngeen ko ko waxee mu rafetlu ko jàpp ci ca di leen dig ni it at mu ne fas yéene na bu ngeen ko yëkkatee mu nekk ci seen wet nekk ci seen kanam nekk ci seen ginnaaw ba nga xam ni jeunesse Tivaouane bi dina am formation bu baax bu ñu defatee examen ñu bokk ci résultat yi gën ci Sénégal